daw gaw abone abonné ci seen plateforme seen production ndax nak dara du len recc ci sen histoire ak film ak programme yu am solo ñu len tam andil jamono bu nek sen production islam ci kanam dal len ak jamm ci sen production sen plateforme préférée mi len di jangal te di len wéttali jamono bu nek yéen commerçant yi ak yéen ñu yor entreprise bëgg fësal seeni produit daw leen ñëw fii ci seen production ñu defal leen ay spots publicitaires yu mucc ayib ci njëglu xéewale ngir jokkoo ak ñun wooteel ci sunu service commercial 76 022 0038 wala 33 977 57 07 seen production le grand et le meilleur site internet islamique au Sénégal seen production islam ca kanam ñoo ngi leen di nuyu te leen jaajëfal yéen ñi safoo seen kër gi di seen production ñu fas yéene àndi fi ñu yemoon ci jaar-jaari xaadim rasul ñoo ngi yemoon ci épisode 29 kon tey épisode 30 lañ leen di àndil incha allah fi yemoon nag ci épisode bi passé mooy bi nga xamee ne naar yooyu jóge woon Madina ñëwoon ci sëriñ bi ngir sàkku si aajo yooyu nga xam ne moom lañ amoon ci sëriñ bi ak leen leen sëriñ bi tontu ak nganale gëm leen nganale nga jam leen defal ba ni naar yi ñibbee ak téere yi nga xam ne bind na ko ci ay warafal jox ko naar yi te mu jëm fa nga xam ne mooy Madina loolu yëpp defoon nañ ci histoire leeral ko ci épisode bi passé kon dañuy leeral li nga xam ne moom mooy màggalu Tuubaa gi nan la ko sëriñ bi diglee wax nañ ne ki ñuy wax sëriñ bu Bousso dafa am benn bis moom sëriñ Moulay Bousso mooy nettali ne dafa am benn bis ku ñuy wax sëriñ Mor Xarikan jóge Gede ñëw njaareem ba muy ñëw dafa indi ab bëy ab sikatu bëy béy wu jigéen daal di koy jox sëriñ Moulay bu so ko bay wii de sëriñ Modou Bousso ca Gédé moo ko jox sëriñ bi addiya sëriñ Moulay Bousso daal di indi béy wi daal di koy yeew ci bërëb daal di ko yëgal sëriñ bi bi mu ko yëgalee sëriñ bi sëriñ bi ne ko ndax béy wi mën nga maa dem soppil ma ko defal ma ko xar mu góor sëriñ Moulay Bousso ne ko ah noonu sëriñ bi daal di koy digal ngir mu dem changé béy wi defal ko xar mu góor sëriñ Moulay Bousso daal di dem ca darar ga ca sàmm sa nga xam ne ñoom ñooy jaay bay te sàmm yooyu ñoom ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñooy séeréelu mbudaay gi bu ñëwee ci séeréel su mbudaay si daal di indi li nga xam ne mooy béy wi ngir fas ko yéenee wecc bi mu ñëwee daal di ñëw ci benn séeréel boo xam ne dafa amoon ay gàtt yu bari mu daal di ne ko man de damaa ñëwoon indi béy wi ngir ngeen soppil ma ko defal ma ko xar mu góor waaye sëñ Moulay Bousso bi mu waxee loolu séeréel bi séeréel bi gëmeewu ko ndax foogoon ne rek loolu mënta nekk béy wu mel ni béy wu mel ni béy woowu mu yor nga xam ne valeur bi ëpp na sax xar mu góor mu mag ndax béy bi wax nañ ne dafa nekkoon béy woo xam ne dafa giir ba noppi daal di jox giir te jox nag ci wolof mooy béy woo xam ne dafa nekk béy woo xam ne doom bu mu jur day dund te day mën a bëri doom lool te itam jox gi mooy su amee doom day mën a bëri soow lool te doomam yi duñu faatu dañuy nekk doom yoo xam ne dañuy dund te dañuy mën a bari nga xam ne sàmm sépp xeetu béy yu mel noonu rek lañ bëgg dengi dengiwul dafa gaawantu nangu noonu mu ne ko xoolal ci gétt gi xar moo ci bëgg noonu sëñ Moulay Bousso daal di xool xar mi ci gën a mag daal koy tànn séeréer bi ne ko kon mën nga koo jël noonu nag mu andi xar mi ci sëriñ bi wan ko ko sëriñ bi ne ko xar mi jël ko nga denc ko bu ma ko soxlaa dinaa la ko laaj noonu nag la sëriñ bu Bousso daal di jëlee xar mi daal di koy yeew ci bërëb di ko toppatoo di ko gardel sëriñ bi ba waxtu ko sëriñ bi soxlaa ci noonu nag bi ñu àggee ci bisub talaata fukki fan ak juróom ci weeru safar mu dëppoog 1341 ci gàddaay gi mu nekkoon itam le 19 sulet 1921 ci di mu juddug Seydina Isa alayhi salaam ci noonu bañ ci àggee sëriñ bi dafa daal di dajale mag ñëpp bi mu dajalee mag ñi daal di waxtaan ak ñoom ne nag dama leen di yëgal bis boo xam ne mooy bis bi ëpp solo ci seen bis ndax bis la boo xam ne sunu borom tabaaraka wa taala daf maa déggoon ne ma liggéey bi nga xam ne moom nga may liggéeyal danaa la ko fay te fay gi moo ngi nii waaye taxul woon suñu borom jox ma ko bis bii nag bi biñ ci àggee ci li ma ko suñu borom jox léegi liggéey bi moo ngi ak man yor naa ko fay gi ma suñu borom fayee jox na ma ko kon li ma bëgg mooy dama bëgg bis bi mu nekk bis sant suñu borom te man lott naa ci sant ko bëgg ngeen santale ma ko ci noonu nag mu ne képp koo xam ne am nga ñaari xar bu tabaski ñëwee Seydina Ibrahima bis boobu mooy bisam te nitu yàlla bu nekk am na bis Seydina Ibrahima bisam boobu bu tabaski ñëwee rey leen benn xar bi ngeen def ko ngir jëmmi yàlla sunu boroom rayal ko Seydina Ibrahim ci tabaski bi waaye nag sama beneen xar bi na ngeen ko denc bu sama bis ñëwee ngeen daal di koy rey ngir sante ci sunu boroom santale ma ci sunu boroom ci bis bi waaye nag koo xam ne benn xar képp nga yor nag na nga ko denc ba sama bis bi ñëw nga daal di koy rey ndax nag jotewuleen nag maam Ibrahima moom man ngeen jotel ndax maam Ibrahima fekkantewuleen nag moom man ngeen fekkantel noonu la sëriñ bi daal di waxee ak mag ñi noonu itam la leen digalee bis boobu ci fonk googu sëriñ bi fonk mu bis boo xam ne la ci sant sunu borom te sëriñ bi wax ne nañ ko ci santale boromam digle ko ci maanaam li nga xam ne mooy bernde ci rendi gàtt ak jaamu yàlla ci noonu nag bi nga xamee ne jotaay boobu am na sëriñ bi daal di woolu sëñ Moulay Bousso daal di koy laaj gàtt boobu nga xam ne moom la ko dénkoon mooy xar mi sëñ Moulay Bousso daal di indi xar moom nga xam ne moom la wecc ji woon ci béy wi bi mu indee xar mi moom sëñ Moulay Bousso sëñ bi daal di ne ko na nga defar xar mi maanaam nanga ko lawetal ci sa loxo maanaam na nga ko faat rendi ko su ko defee daal di koy fees ci sa loxo nga def ko ñetti saam benn saam bi nga jox ko soxna Aminata Bousso muy wajur sëñ Abdou Khadir beneen saam bi nga jox ko soxna Anta Bale Bousso muy rakk soxna Aminta Bousso beneen xaaj bi nag nga yóbbu ko ci daara ja nga nekk ngeen barkeeloo ko sarax naa leen ko noonu lañu tàmbalee màggal gi wax nañ ne itam sëriñ bi wool ne ki nga xam ne mooy sëriñ Amsatu Jaxate sëriñ Amsatu nettali na ne moom itam ci bis boobu sëriñ bi wool na ko waxtaan ak moom te sëriñ Amsatu nettali na ne bi ko sëriñ bi di woolu moom dafa jógee fi nga xam ne mooy tuubaa Touba la ko fekk fa la ko sëriñ bi wooloo mu jógee Touba ñëw fi nga xam ne mooy Njaareem ba mu ñëwee sëñ bi waxtaan ak moom ne ko am na mbind moo xam ne man ak yow rek ñoo ko gisoon muy géréel bis bi te bis bi bi nga xamee ne génn naa ngir dem ci nattu yi maanaam ngir dem liggéeyali sama boroom liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi ci lañ ma daal di tegee nattu nattu boo xam ne dafay jaayante sama diggante ak borom nattu boobu nag bisub samedi boobu nga xam ne génn naa ko muy xarit yoma sabti samina boobu sëriñ boo xoon bisub samedi boobu mu génn tàmbali liggéey bi ci lañ ko tegee natt boo xam ne at mu jot dañ koy multiplier dix fois ci ñeenti at yi rek junni nattu la te natt bu ci nekk buñ ko tegoon buñ ko joxoon doomu aadama du ko attan doomu aadama boo xam ne bu du sëriñ bi buñ ko ko joxoon du ko attan ndax nattu yi diis la sëriñ bi bi mu nekk ci géej gi noonu la wéyalee nattu yi di ko dund ak moom at mu jot rek ba bis bi joxee dañ koy yokkal natt yi multiplier ko ba muy fukk nga xam ne mujj na nekk ay junne junne nattu sëriñ bi wax ko ne diirub fukki at yi nga xam ne ci laa doon liggéey liggéey bu rëy bi diir boobu mooy liggéey bu géej gi nga xam ne ci laa ko doon liggéey diir boobu at mu ñëw rek dañuy ful natt yi ba mu gën a bari su fukkeelu at bi nag ci lañu bàyyee natt yi ci lañ arrêté natt yi waaye nag taxul nattu yi jeex dafaa des rek di wàññeeku at mu jot mu wàññeeku waaye nag at mi nga xam ne ci laa la digal maanaam ci laa ci laa la woolu digal leen bis bi ngir ngeen di ko sante suñu borom kon nag at mii nga xam ne moom laa woote bis bi ci la ma sunu borom joxee nag liggéey bi fay gi dëgg-dëgg ci la natt yëpp jeexee nag benn nattu gisatuma ko natt yi ma yenoon yëpp yenn nañ ko léegi nag li fi nekk kay mooy sunu borom dafa maa fayee xéwal goo xam ne xéwal gi day saawaan baawaan di gën a yokk at mu jot rek xéwal gi dañ koy multiplier ni ñu doon multiplier natt yi nu ko raw la ñuy multiplier xéwal gi kon ñu xamee ci rek ne xewalu màggal gi lu yaatu la loo xam ne day dema dema dema dem ba àjjana ndax serigne bi wax na nako xewal li muy bëri ci da fay yok di yok ba saa taxaw manam ba aduna tukki xewal gi du wàññeeku at mu jot rek dañuy gis ne xéewalu bis bi day gëna yok bu bis penc nak comme bis penc mom amul guddi amul bëcëk waxtu wu nek rek na mel lay mel amul amul naaj bu tang amul kër bu sedd ni mel non lay continuer di mel waye suñu borom mom dina xam bis yi ban ban bis lañ tollu waxtu ñu aggé ci bisub magal gi neexitu àjjana dinañ ko yok bañ ñu xam ne bis bi aksina kon bis bi day bis boo xam ne dañ koy fay ci àdduna di ko fay itam alaxira muy loo xam ne sëriñ bi moo ko waxoon si am satu sëriñ bi natt yi nga xam ne wax na ne nekk naag moom fukki at maanaam fukki at yoo xam ne sëriñ bi moo ngi nekk ci natt yi nekk ci liggéeyu bi nga xam ne mooy liggéeyu géej gi liggéeyu géej gi nag xam nañ ne matul fukki at waaye bi sëriñ bi ñibbisee daf koo àggale gànnaar maanaam liggéey bi jeexul daf ko wéyal gànnaar ba fukki at yi mat te loolu moom la sëriñ bi bind ci bayit wi ardaytuhu asra sinina bi xidam xaalisatan lisil wujudu wal xidam mu ne nag fukki at yi nga xam ne nekk naa ko di liggéey bi sallallahu alayhi wa sallam nattu yi waxtu wu nekk dañ ko yokk ba ci fukkeel ba nag ci la ma sunu borom xamalee na ma nattu yi nag mat na waaye nag dafay wàññeeku at mu jot rek dañ ci wàññi ci nattu yi waaye tax lu mu jeex at moom nga xam ne ci la wote màggal gi nag ci la waxee ni sunu borom jeexal na nattu yi léegi nag lépp lu fi nekkoon ci nattu soppi nañ ko xéewal goo xam ne xéwal gu yaatu la ko ñuy multiplier at mu jot mu multiplier ko mu gën a yokk kon xéwalu sëriñ bi gi ko sunu borom fayee yaatu na lool te loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy gis ci kaw suuf kon loolu nekkoon li nga xam ne mooy wooteeb màggalu Tuubaa gi noonu la ko sëriñ bi wootee noonu la sëriñ bi woyalee nam foofu ca njaareem ca nekkinam wu tedd woowa ak itam yar gi ak jàngale gi ak yaatal li nga xam ne mooy ak mbaax ak kenn la sunu borom tabaraka taala ci waxtu wu nek ba dara du dess ginnaaw ci lo xamne lu borom bi diglé la bi sëriñ bi nekké ci lolu ba ci bisub samedi ci atu 1344 manam junne ak ñetti témèr ak ñen fuk ak ñent ci weeru jumaada ula mooy rakk ji tombé ak ñaar fuk fan ci wéru octobre ci atu 1923 ci bis bobu ci at momu ci le sëriñ bi digalee sëriñ mbacké Buso ngir mu bind benn lettre boo xam ne lettre autorisation la bu muy jox wenn général ngir sàkk ci moom mu jox ko autorisation ngir ñu tabax jumaay Tuubaa ji jumaa ji nga xam ne suñu borom diggoon na ko sëriñ bi ko jumaa jooju la doon wut autorisation ngir ñu jox lañ ci ndigal ñu mën koo liggéey ci noonu nag bi nga xamee ne sëriñ Mbàkke Bousso bind na lettre bi sëriñ bi li tax mu bind la ko sëriñ Mbàkke Bousso mooy moom dafa waxoon ne dootu sàkkooti ci Tuubaa bi dara dootu sàkku ci tubaab bi dara lu muy sàkku rek ci boromam la koy sàkku ba tax na nag bi nga xamee ne mbir moom nekk na loo xam ne ci wàllu jaayir mënut a ñàkk ndax boobu tubaab yi ñoo nekkoon kilifa ci réew mi sëñ bi dafa diggal sëñ Wàdd Buso mu daal di koy bind ci mujjug bind bi nag sëriñ bi def na fa signature am bi wane ne sëriñ bi moo ko bind moo ko bindulu maanaam ci ndigalam lañ bindee lettre bi te signature bi moo nekkoon Mouhamed ibnu Mouhamed ibnu Abiballah waaye mbind mi moom sëriñ Mbàkke Buso moo ko bind am na ñoo xam ne sax yor nañ mbind mi denc ko mu nekk li nga xam ne mooy archive ci noonu nag sëñ Mbàkke Bousso daal di bind lettre bi ñu daal di koy jox gouverneur bi ñu ko joxee kilifa gi nga xam ne mooy kilifa gu mag ba mu ko liiree ba noppi daal di joxe autorisation bi maanaam daal di nangul sëriñ bi loolu bi ñu nangulee sëriñ bi loolu nag sëriñ bi nag daal di woolu mag ñi bi ñëpp dajee sëriñ bi daal di waxtaan ak ñoom ne leen dafa am liggéey boo xam ne sunu borom daf mu ko digoon te agsi naa ci mooy liggéey jumaay Tuubaa ji maa ngi sàkku ci yéen mbooloo mi ku ci nekk na ci aw ñaqam dem maanaam daal bëgg naa ku ci nekk saw ñaq dem ci liggéey bi te itam na ci sa ñaq demee mooy at mu jot bëgg naa ku nekk ci yenn joxe li nga xam ne mooy ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett muy boppam maanaam ku ci nekk daal na joxe ñaar fukki dërëm ak juróom mu nekk cotisation ci liggéey bi wax nañ ne ci noonu la ko mag ñi doon doxalee at mu at mu jot rek ku nekk joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett wax nañ ne ci diirub ñeenti at yi sëñ bi dajal na ci lu toll ak juróomi million ci at jamono yooyu te juróomi million ci jamono yooyu boo ko doon xayma jamono yi dafay nekk ay milliards yu ko takku takku bi loolu amee nag bi xaalis bi dajee nag muy juróomi million ci jamono yooyu sëñ bi dafa daal di woolu ki nga xam ne mooy Cheikh Mahamadul Moustapha Mbacke di ab mu wooloo Cheikh Mahamadul Moustapha daal di woolu itam rakkam Cheikh Mahamadou Fadal woolu ki nga xam ne itam mooy Cheikh Massamba Mbacke woolu itam sëriñ Balla Coro Mbacke bi mu leen wooloo ñëw ba noppi nag daal di leen sant li nga xam ne mooy liggéey jumaa ji muy santaane bu njëkk bi leneen nag li ma bëgg mooy dama bëgg ngeen xool ana yan pexe ngeen def ba ñu mën a taxawal liggéey bi nga xam ne nag mooy liggéey jumaa ji wax nañ ne nag bi nga xamee ne ñoom jug nañu ngir wuti pexe ci jamono yooyu amoon na benn commandant bu nekkoon Thiès bu ñu daan wax Teleri moom Teleri moomu dafa nekkoon commandant ca cees waaye bi mu yëgee xew-xew boobu maanaam liggéey jumaa ji ak lañ dajale ca xaalis dafa daal di sàkku ci kilifaam ngir mu démissionner fonction bi mu nekk mën a créer li nga xam ne mooy entreprise nekk ki nga xam ne da nekk entrepreneuriat ngir société am nekk société bi nga xam ne moo nar a liggéey jumaay Tuuba ndax xaalis ba mu dégg rek moo ko ñor bëgg na daal def ay pexe ba sàcc xaalis bi bi nga xam ne mooy juróomi million yi nga xam ne ay milliards la ci jamono boobu ci noonu nag moom Teleri moom bi mu ñëwee mu daal di waxtaan ak sëriñ Mourou Moustapha ak sëriñ Balla Coro ngir fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi nekk ki nga xam ne mooy yor liggéey bi ci noonu nag bi mu ñëwee mu signé ak ñoom contrat te contrat bi moo nekkoon ne liggéey bi maanaam yoonu kenn nekku ci diggante moom la ak ñoom maanaam moom tëlëri moomu ak ki nga xam ne mooy sëriñ bi ak waa këram yoonu keneen nekku ci léegi nag contrat bi soo xamee ni moom tëlëri faatu na doomam mooy continuer contral bi ñoom itam ku ca faatu sa doom mooy continuer contrat bi loolu la signé wante ñoom mu ne leen nag accord yi nga xam ne signé wante naa ko yéen nag képp koo xam ne refusé na contrat bi na na xam ne nag dana ma fay lu tolloog six cent mille francs euh, li nga xam ne mooy ndàmpaay dina ma fay euh, six cent mille francs yi nga xam ne texte lay doon maanaam su fekkee man maa refusé contrat bi dinaa leen fay six cent mille muy juróom benn téeméeri junne su fekkente ne yéen yéen refusé contrat bi di ngeen ma fay si cent mille loolu yëpp nag tubaab bi dugal ko ci biir ngir fas yéene def ndëgg sërëx ak itam jaar ci ay pexe ba lekk xaalis bi wax nañ ne nag bi nga xamee ne liggéey bi tàmbali na bañ dem ba ca biir tubaab bi commencé dugal li nga xam ne mooy ndëgg sërëx yi nga xam ne moom la bëggoon a dugal bi ñu ko xamee nag ci lañ daal di annulé li nga xam ne mooy contrat bi maanaam daal di réviser contrat bi wax nañ ne sax maam Cheikh Anta Mbacke bokk na ci ñi ko njëkk xam waaye bi ñu xamee loolu daal moom maam Cheikh Anta Mbacke wax nañ ne moom borom gaawaan moom moo daal di fay juróom benn téeméeri junne yooyu maanaam six cent mille yi nga xam ne moom la tubaab bi ne bu ñu annulé contrat bi dañ koy fay kon noonu la liggéey bi daal di amee jafe-jafe ca pexey tubaab ya ca ba sëriñ bi wootee ginnaaw bi nag wax nañ ne sëriñ bi woote waat na ko daal di koy digal ki nga xam ne mooy Cheikh Maodo Moustapha am na jotaay buy wan ne sëriñ bi woote na ko ñaari yoon yoo xam ne dafa dajale mbooloo ci ay kilifa yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom wax leen ay wax yu yéeme ngir soññ leen ci jumaa ji ci noonu itam wax nañ ne bi jafe-jafe yooyu amee ci liggéey bi ba tubaab bi dugal li nga xam ne mooy ndëgg sërëxam dugal ak càncaayam ba mën naa ne yàq liggéey bi sëriñ bi mébét gi nga amoon ci jumaa ji dañul benn yoon ndax sëriñ bi suñu borom daf koo dékk jumaa ji te muy lu wér lu wóor loo xam ne teg na ci bëtam te it alaa dana am ba tax na nag mu amoon yaakaar lool ci taawam boobu di Cheikh Mamadou Moustapha daal di koy woolu bi Cheikh Mamadou Moustapha ñëwee sëriñ bi daal di koy dénk ay dénk yu bari wax nañ ne bokkoon na ci yem ko dénkoon ñett ci yem ko dénkoon benn bi mooy jumaa ji ak itam jëmmam ji maanaam boo xamee ne nekkatu fi jugee na fi mu andi ko Touba te bu xat damm maanaam bu benn yëngu-yëngu am na ci doxal ak mat ak dal ba sëriñ bi ñëw Touba ñibbisi te lépp luñ ci war a dox diggante mag Touba bi sëriñ Moussa dox ko loolu sëriñ bi dénkoon na ko beneen bi itam sëriñ bi dénk ko ak njaboot gi maanaam njabootu boppam gi. ci noonu nag wax nañ ne dénk yooyu bu ku sëñ bi dénkee ak yeneen dénk yu bari yoo xam ne bu ñuy nettali histoire sëñ Mourou Moustapha ci filmu dañ leen ko andil incha allah wax nañ ne sëñ bi dig na ko ay dig yu bari ay dig yu rëy dig yooyu mu ko digoon ne ko boo matalee li ma la dénk soo ko matalee na xam ne xéewal yooyu danay agsi ci yow loolu yëpp danañ ko leeral bu ñuy àndi histoire sëñ Mourou Moustapha incha allah ci yeneen i jamono waaye nag ginnaaw boo xam ne sëñ bi digal na ko loolu moom sëñ Moustapha def na ko yitte ànd ko rakkam Cheikh Mamadou Fadal Mbacké mi nga xam ne moo mujjee àggale jumaa ji ak euh, rakkam jooju nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Bassir ak kilifa yi mu ko àndaloon yëpp sëñ Moussa taxaw na ci ba taxawal jumaa ji comme ni ko sëriñ bi bëggee woon ginnaaw boo xam ne sëriñ bi jugee na fi waaye loolu histoire la spéciale boo xam ne na sëñ Moussa def ba taxawal jumaa ji ak ndëgg sërëx ya ci tubaab yi laloon ak nite ak xel mu rëy ak njàmbaar gi ci sëñ Moussa doxalee ba andi li nga xam ne mooy chemin de bi maanaam ñu andi saxaar si Touba taxaw ci ba liggéey bi mën a mucc ayib ak Cheikh Mamadou Fadal ci njàmbaaram ak mbaaxam ni mu defee ba tourné ba trouvé xeer yi nga xam ne mooy xeer yi doon gasee ca ndokk ba andi ko ngir ñu liggéey ko jumaa ji moom mi nga xam ne moo àggal jumaa ji la ca am lépp danañ leen ko andi ci beneen histoire boo xam ne ci beneen jamono lay doon ci diggante sëriñ moom mu Moustapha ak liggéeyam yooyu ba ci histoire Cheikh Mamadou Fadal waaye loolu dañ leen koy lepp bañ àgg ca jamono yooya kon ñu wéyal jaar-jaari Xaadimu Rasuul nun daal la sëriñ bi woote woon digle woon li nga xam ne mooy jumaa yi Tuubaa ji mooy jumaa ju mag ji noonu la ko sëriñ bi diglee noonu la liggéey bi tàmbalee foofu la mujjee noonu itam la ci sëriñ Mourou Moussa taxawee ba liggéey bi am ci noonu sëriñ bi daal di wéyal nekkinam foofa ca njaareem ba ca bisub dimaas fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit dëppook atum junne ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci gàddaay gi mu tombeek 19 sulet 1927 bis boobu moo ngi fekkoon taawub sëriñ tubaab boobu di Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénkoon ndénkaan yooyu moo ko fekkoon fa nga xam ne mooy dëkkam bu ñuy wax Touba Kayel nekk ci wetu Mbàkke wax nañ ne benn yor-yor ci bis boobu ci yor yoor gi nga xam ne fekk nañu ndékki ba noppi. sëñ Moussa fi mu toog ci piliyaan bi dafa jékki-jékki rek am lu ko daal di dikkal bi ko loolu dikkalee nag mu daal di nekk ceeb xaal daal di jug taxaw mel ni ku tiit bis boobu ci la sëñ Mour Moustapha daal di jug mu jugee nag wax nañ ne mu daal di jug ci mbooloo mi waax waaxu yi tàng dem ci ginnaaw kër gi fi nga xam ne toolub ñam bi moo fa nekk taxaw ci roon garab goo xam ne mu ngi nekkoon keppaaru yor-yor bi mu taxawee ci roon garab gi nag wax nañ ne ku ñu wax sëriñ Mor jaan jàndam Diop sëriñ Mor Jaanam jóob nekkoon kenn ci mag ñi àndoon ak sëriñ Mor Moustapha dal di ñëw daal di ko fay fekk bi mu ko fa fekkee moom it daal di jaaxle lool ci melokaan bi sëriñ Mor Moustapha jugee waaye itam am nañu wax ne sëriñ Mor Moustapha ci boppam moo woolu sëriñ Mor Jaanam Diop ci keppaar googu waaye lu ci a am moom sëriñ Mor Jaanam Diop moo fa taxawoon ak sëriñ Mor Moustapha sëriñ Mor Moustapha daal di koy wax ne ko man day Mor damaa amuk jaaxle lool sëriñ Mor Jaanam Diop daal di koy laaj ne ko ana lan moo la jaaxal Mbàkke mu ne ko ah man de dafa am mbir mu ñëw ci man daal di may wax wax joo xam ne te mbir moomu lépp lu mu la wax rek dëgg la te daf ma wax ne ma Modou Moustapha boo amee ñeent fukki at dootoo am kilifa ci kaw suuf te fii may waxee yow maa ngi ci sama ñeent fukki at te sëriñ bi itam maanaam sama ñeent fukki at yu tegal maa ngi ci sama ñeent fukki at yu tegal te sëriñ bi nga xam ne mooy ku tedd ki Cheikhul Khadim moo ngi ci kaw suuf te naka laay mën a bañee amee kilifa te sëriñ bi nekk fi wax nañu ne sëñ Moom Saal loolu la wax sëriñ Mor Jàndam Jóob ci noonu nag mu nekkoon jotaay bu yéeme boo xam ne bu jaaxlewu la sëñ Mor ja daal di jaaxle loolu sëñ sëñ Moom Saal jaaxle sëñ Mor Jàndam Jóob moomu nag mooy wayjuru maam soxna Lo Jóob mu tedd ma nga xam ne mooy wayjuru sëriñ Mbàkke Mouhamed borom Taïf ci noonu nag la sëñ Moom Saal daal di waajee nag ngir dem Touba noonu la tàggoog waa dëkk ba. ànd ak sëñ Mor jàndam jóob moomu ak ñenn ci ay mag jël oto ngir jëm fa nga xam ne mooy Touba wax nañ ne ba muy dem ci yoon wi am na bërëb yu bari yoo xam ne jaar na fa ndax bi nga xamee ne jógee na Touba Kayal jël yoonu Touba ba àggu Touba ba mu àggee Touba moo ngi jaar fu ñuy wax sura sura googu sëñ Moussa dafa dëkkoon amoon fa kër ba mu jaaree sura jógee fa yàggu fa maanaam dafa agsi rek tuuti rek sëñ Moussa daal di fay jógee jaar fi nga xam ne moom la ñuy wax Tindodi bi mu jaaree tundoo di jógee fa daal di jaar këllal bi mu jaaree këllal daal di jaar ñaaxeen ñaaxeen googu sax wax nañ ne am na fa ñaari fan waaye lu mën a lu loo xam ne daal moo gën a wér ci histoire bi mooy ñaaxeen fa la gën a yàgg ci mboolem ku mu jaar bi mu jaaree ñaaxeen nag am na fa guddi goo xam ne sëñ Moussa am na mag moo xam ne fekkee na ko dafa wax ne sëñ Moussa da doon julli ci guddi gi ba mu yàgg mu daal di tudd yàlla wax allahu akbar mel ni koo xam ne daal dafa am xabaar bu rëy bu ñu ko xabaar guddi gogu la fanane julli ak jang alquran ba asaman set lolou di xew-xew bo xamne dafa melni seigne Moussa dal dafa am lu mu yek ci yaramam lu ko xabar lo xamne mbirum batin la waye bimu joge ñaaxen dafa jaar ci way jurum ba borom gawan dal di jaar gawan bimu mu gawan fekk fa way jurum bu bax wa mam Cheikh Anta mam Cheikh Anta nak bimu ko gisee dafa contane lool ba wax nañ ne sax mam Cheikh Anta doon nako ko le. ganale ba wut bernde yu bari ndax dafa amone dafa nekkoon ku gan mom mam Cheikh Anta tey tamit dafa seigne sëñ Moussa ak ngan sëñ Moussa da ko digon bok ak ngan mu ne ko nag xanaa ngan nga ma digon mom nga seigne sëñ Moussa ne ko man de dama jëm ci aw yoon wo xamne dafa yakamti won lol manam yoon wu jamp la mu ne ko lol rek motax nga jéggal ma ngan gi motax mënuma mënumaa yendu wax nañ ne waxtu wo la fa sëñ Moussa juggé waye wax nañ ne bu mu fay juggé mam Cheikh Anta borom gawan ci mbaxam jëlon na ba go xamne manam rab bobu ñu wax baa nga xamne mu maga mag la ba xaw a tolloo gileem moom la ko joxoon ak saako cere cere ju baax joo xam ne bokkoon na ci cere yu ëppoon valeur ci jamono yooyu mu joxoon ko ko ngir ñu waajal ko ngir mu yóbbaale ko ci yoon wi ndax boole woon na ko ca lam ko bëggoon bëgg a bi nga xamee ne nag jotaay boobu jeex na ba sëriñ bi woyal aw yoonam waaye sëriñ Moussa boobu talul dara ndax li nekk xolam ak xelam nekkoon na lu yéeme loo xam ne lu yëgoon la ci noonu la nag la jëm yoonu njaarim wax la nga xam ne li ko teree ak njaarim bareetul jaar na ci ku ñu wax sëriñ Modou Lamine Touré sëriñ Modou Lamine Touré moomu wax nañ ne sax sëriñ Modou Moussa moom la may baag gi ak cere boobu saako cere ji xam ne noonu la fa sëriñ Moussa jugee daal di agsi njaareem ba muy agsi njaareem nag moo ngi fa agsi diggante tosubaar ak tàkkusaan bi nga xamee ne agsi na njaareem dafa dal ci këram googu nga xam ne moo nekk ca boqaatul bu baaraka ca wetu kër sëriñ ba foofu la dal. ba fa sëriñ Modou Moustapha ñëwee nekk fa ak lenn ci mbokki taalibe ñëw fa di saafanteeg moom wax nañ ne bis boobu sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ñëw na fa ba mu ñëwee chargé sëñ Mourou Moussa te bis ba xamal ko ne ko sëriñ bi day euh, mbiram day xaw nañ ci amuk jaaxle lool ndax dimanche daal ba léegi xamuñ ci moom dara maanaam daal génnul dimanche ba léegi bi mu ko waxee loolu itam wax nañ ne sëriñ Makhtar Sylla ñëw na fa wax ko lu mel noonu ne ko sëriñ bi de mat naa nemmeeku ndax dimanche ba léegi xamuñ ci moom dara ndax génnul ci noonu itam bi nga xamee ne loolu am na sëñ Moussa wax jooju daf koo def waxu suuf maanaam bëralu ko ci kaw moom ak ñi mu ci doon diisoon te mbooloo mi bari woon na lool mu am ñenn nit ñoo xam ne ñoo nekkoon ca ñoo nekkoon ak sëriñ ba ca bërëb ba mu laaj leen ba mu leen laajee ñoom itam ñu xamal xamal sëriñ Moussa ne ko sëriñ kat bërëb sàngam la dugg waaye ba mu fa duggee daanaka dimaas ba léegi taxul ñu xam ci moom dara sëriñ Moussa nee na waa baax na ci noonu nag muy saafante ak mbokki taalibe fa nekkoon mbooloo mi ngir bañoon rek kenn am lenn ci lo xamne rek mu yëngu-yëngu wala lu muy xalaat ci mbir mom ci non nak la serigne Manoune soa jeexalee jotay bobu waxtu timis joté ñu dal di julli timis biñu julli timis ba nopi nak serigne Manoune soa dal di wolu serigne Mouhamadou Lamine job ak serigne Makhtar silla ak serigne abdullahi job lewna ak serigne Cheikh job xariñang ñum na wolu dal di and ak ñom na len léegi nañu dox nank ñu dem nemmeeku ci serigne bi bañu dem nak serigne Manoune soa dafa bayyi ba nga xamne julli nañ ba mbolo mi tok mu yolleeku nank ànd ak ñoom dem ngir xooli sëriñ bi nemmee ji ko nemmeeku ko comme wax nañ ne dimanche ba léegi gisuñu ko xamuñu itam fu mu nekk ci bërëb yi ci noonu nag wax nañ ne bi ñu agsee bi ñu laajtee ba xam kees bi nga xam ne fa la sëriñ bi mujjee dugg am na bëkk nekk bu fa nekkoon boo xam ne moo yoroon caabi ñu koy wax sëriñ Cheikh Fatak Diop sëriñ Cheikh Fatak moomu moo yoroon caabi yi bi ñu ko ko laajee sëriñ Modou Moustapha daal di koy laaj ne ko fan nga mujjee dégg sëriñ bi mu yëngu. mu wax ko ne ko bërëb sàngam daal di leen koy wan ci biir kees yi nekk ci kër gi bi mu leen tijjilee foofu ba ñu dugg moom Cheikh sëñ Cheikh Fatou Tacko Diop nee na boobu fukki at ak juróom-ñett la am maanaam jeune la nekkul woon mag taxawoon na moom duggul woon dafa taxawoon ca ginnaaw ñoom ñoo dugg bu ñu duggee nag ki nga xam ne moom mooy sëriñ Makhtar la ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diop ñoom la sëriñ Moussa yebal ngir ñu ñiit fi nga xam ne xool ba néeg la sëriñ bi nekk maanaam fu ñu dugg rek bu fa fekku sëriñ bi ñu xool ko feneen non lañu ron lamp bobu di di ñiit mu nekkon digënté 19h japp 20h ñuy ñiit li nga xamné muy néeg bi nga xamné fa la sëriñ bi nekk wax nañ né bi ñu ñiitee ba gis ko ki nga xamné muy sëriñ Maxtaar Silla bi mu gisé sëriñ bi xam fi mu nekk ci non lañu andé ak sëriñ Mourou Sowa ci yar gi ak téggin gi bi ñu mu daldi yëglu manam daldi nuyo bi ñu nuyowé kenn fayu leen te sëriñ baangi ci bir wax nañ ne mom ni mu di def rek moy day jël alxuraan ak téré yi nga xamné moy téré suñu borom yi moy xaside yek alxuraan dal lalbi di koy jël ci kaw lal bi lal fak mbàjj sot ci parfum lal ci suuf lalaay bu jek dal di teud sëriñ mom non la tam doon doxé bi ñëwee nag sëñ Moussa bi nga xamee ne na ba dugg ci biir ba gis sëriñ bi nonu sëriñ Mourou Moussa dal di jël loxom dal di koy tek ci tank bi tankam yu teddi ci non itam bu ko mounou sa xolé ci la daldi di tudd yàlla moom sëriñ Moussa xam ne la dikkaloon yonent bi sallallahu alaihi wasallam di sangu serigne bi nga xam mom la serigne bi doon liggéeyal bis bobu dikkal na serigne bi serigne bi dem na ci boromam fekk ji yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xam mom la doon liggéeyal dir bu yag bobu yépp لا إله إلا هو الحزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت noonu nag Cheikh Mahamadul Moustapha daal di ànd ak اك ak njàmbaar ak muñ xam ne nag ndogal bi agsi na yan bi itam ñëw na la agsi na ti noonu wax nañ ni sëriñ Mourou Moussa dafa daal di yónnee ci sëriñ Balla Coro moom yónnee ci sëriñ Balla Coro ba sëriñ Balla xamal ko li xew ba sëriñ Balla Coro yëgee rek ñoom ñaar dañoo daal di ànd sëriñ mu Moustapha Mbacke ak sëriñ Balla Coro Mbacke ñoom ñaar ñu daal di ànd ngir dem ca commandant ba fa nekkoon daal di ko yëgal xew-xew bi commandant nag bi mu ko yëgee dafa daal di tiit ndax loolu nekkoon la nga xam ne ñoom moom lañ doon wut ay at yu bari di fexeel sëriñ bi ngir faat ko loola mën mënta nekk nekkoon loolu impossible ci ñoom tey nag loolu la sunu borom dogal maanaam sëriñ bi ñibbi ci boromam bi commanda yéegee nag daal di ànd ak ñoom commanda boobu mu ngi tuddoon paal moom paal moomu daal di ànd ak ñoom ñëw wax nañ ne bi ñu ñëwee moom commanda bi ci boppam xool na sëriñ bi ngir am confirmation ndax sëriñ bi nag wax na ne sëriñ bi dem na ci boromam du tax nga gëm ko ndax nekk na jëmm joo xam ne fi ñu jaar fi ñu jaar yëpp ak fexe ko fexeel yëpp mënuluñ ko dara kon suñ la waxee lu mel noonu faaw nga saytu ko balaa nga koo yëgal gouverneur général muy kilifa gu mag. ci noonu nag lañu ko yëgalee commanda bi commanda ñooy ànd ak ñoom ba ñëw agsi ba ñu xool sëriñ bi commanda daal di confirmer loolu bi mu confirmer loolu nag ci la daal di waxee ne da koy yëgal ki nga xam ne mooy kilifa gu mag mooy gouverneur général waaye sëriñ Manoune Sow daal dina sàkku ci moom ne ko nag da koy yëbbu Touba ñu waxee loolu commanda daal ni ko loolu lu mën a nekk la. foofu itam am na ñu wax sax ne bi ñuy ñëw àndaale nañ benn médecin boo xam ne nit ku ñuul la ngir mu saytu xool ba xam loolu la lu am la lu wér la. xool ba xam ne sëriñ bi dem na ci boroomam waaye li gën a wér te itam mooy li nga xam ne moom laa jëlee ci sëriñ Mbaye Guèye Sylla mooy bi commandant bi ñëw ànduñu ak kenn ndax sëriñ Mbaye Guèye Sylla dafa yor li nga xam ne mooy archive bi bii nga xam ne mooy rapport bi commandant bi bindoon moom gouverneur commandant bi rapport bi mu bind gouverneur général numéro télégramme bi yëpp moo ngi ci biir rapport bi mom la serigne Mbaye gay la wax ne bañ ba fa serigne Mourou Moussa ñew di and ak serigne Balla Coro and ñu ak benn médecin mom ak serigne Balla Coro ak commandant bi ñoo taal seen auto dal di ñew bi ñew ba gis serigne bi ci non nak la Cheikh Mourou Moussa dal di tàmbalee nak ngir ñu waaj mëna a serigne bi Touba serigne Mourou Moussa nak dess njaare mom ngir lijeenti jafe-jafe ak détails yi ak Touba bi ak mbir yi nga xam mënu ko bàyyi ginaaw faamu lijeenti ci non la dal di wolo rakam Cheikh mourou Bachir mu jité yoon bi mu wolu itam ki nga xam ne moo ngi tuddoon Mouhamadou Tandaxi moom Mouhamadou Tandaxi moomu dafa nekkoon naar boo xam ne dafa baaxoon loolu seetlu lool nekkoon itam ku amoon cër ci boromam moom bokkoon na ci ñi sëriñ bi dénkaane woon ñu nekk ñuy mujj ci ñoom ñu mujj ci moom naar boobu noonu lañ ko wooloo mu ñëw ci noonu nag la Cheikh Mahamadul Bachir daal di jël ab oto boo xam ne nee nañ sëriñ Balla Coro moo ko moomoon am na ñu wax ne itam ab naar moo ko moomoon waaye li gën a wér ci li ñu nettali mooy sëriñ Balla Coro moom moomu oto bi te am nañu wax sax oto bi sëriñ bi moo ko joxoon oto boobu la ñu jël ku ñu wax Dudu Siise moo doon dawal Seex Mahamadou Bachir daal di dugg ci biir ak sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana ak sëriñ Makhtar Silla ak sëriñ Cheikh Khary Dieng bi nekkee ci biir oto bi nag oto boobu moo andi sëriñ bi tuubaa moo ko jëlee njaareem andi ko Touba bi nga xamante ni ñëw nañ Touba Cheikh Mahamadou basiir dafa daal di yónnee Daaru yi ci rakkam ju baax ja nga xam ne mooy maam Thierno Mbakke bi ñu ne Daaru Muxti ci maam Thierno daal di koy wax ne ko sëriñ Moussa nee na ñu dajee Touba sëriñ bi nee na ñu dajee Touba na sëriñ bi ñëw na ñu dajee Touba ci noonu la maam Thierno daal di bàyyi lépp lu mu jàppoon daal di jubal si Touba. ci noonu itam la yónnee Gédé ci sëriñ bu so woolu ko yónnee ndindi ci Cheikh Maodo Fadal. yónnee ci sëriñ Mandumbe ak kilifa yi fa nekkoon yëpp ñu daal di leen woolu xëy na ku lim mën ngaa juum waaye daal ñi yónnee woon nañ leen ak kilifa yu bari ba waxoon nañ matoon nañ lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñett maanaam vingt-huit personnes ñoom jëm yooyu ñoo daal di taxaw sëriñ bi ñu jébbal ko boroom foofa ca Touba. bërëb boobu nag wax nañ garab mbépp moo fa nekkoon garab goo xam ne sëriñ bi mosoon naa wax maam ceer Thierno ne ko fii mooy doon sama bërëb. maanaam fii mooy bërëb bi nga xam ne fi ngeen may noppee fi ngeen may noppee gis ci noonu nag la ñu jébbalee sëriñ bi boroomam bu tedd boobu nga xam ne mooy jegeñaaleem bi mu daan liggéeyal ak sangam bu tedd boobu di yonent bi sallallahu alayhi wax nañ ne waxtu fajar woowu bi julli fajar agsee maam Thierno dafa wax ne sëriñ bi nee na woon lépp lu ñuy def ba waxtu julli jot nañ ko bàyyi nga xam ne noonu lañ bàyyi lépp lu ñu doon def ba julli ba noppi door a taxawaay bi noonu la noonu la sang bu tedd boobu di jàmbaaru lislaam demee ci boroomam bi muy dem ci boroomam mu ngi amoon 73 ans maanaam juróom ak juróom am na ñu wax itam 74 ans maanaam juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent moom la sëriñ bi amoon ci ak dundam bi muy dem ci boroomam liggéey liggéey bu rëy boobu nga xam ne fanweeri at yu tegal nekk na ko ci liggéey boobu mu doon liggéeyal boroomam nga xam ne mosul teg tànkam tuuba foofu nag lay door a ñëwee Touba ginnaaw boo xamee ne. tàmbali wona na liggéey bi manam ñu xagn ko lepp xagn ko lepp musul tek tankam ci dekkum bu tedd bi ba ci bi nga xamé né nak dem na ci boromam ñu andi ko Touba lool nag li liggéey bu rëy bo xamné lebal nako suñu borom kon tay fay wi moy li nga xamné mom lañ gis té li ak tàmbali la rek waye suñu borom ak fayam romb na fofu kon sëriñ bi limu liggéeyal boromam ku ne xamné né fay gi aduna ak alakhirah xajna ci kon ñu ñaan suñu borom. taas ñu ci barkeem te gën ñoo dëgëral ci cofeel ak mbëggeel suñu diggante moom gën ñoo dëgëral itam ci ak taalibe lii nekkoon jaar-jaaru xaadim rasul ñi tàmbali woon ko ak gëstu yi ci diggante mille 2018 ba 2019 diggante boobu lañ ko tàmbali woon sunu borom dogal na mu ngi jeex premier septembre mille 2023 premier septembre tombé ak àjjuma 2023 ci la histoire bi jeex ci lañ ko jeexal ki moom lañ ñi nga xam ne ñoom la ñuy gërëm ci histoire bi tàmbalee ko ci sëriñ Basiru Mbàkke xelkom ci gëstu yi ak nettali ñëw itam ci sëriñ du Xayra Jaxate mi nga xam ne itam jàmbaar la woon ñu ñaan su borom yokk ko ay leer fa mu tëdd te yokk ko njëggal ñuy gërëm itam kilifa yu baax yi nga xam ne ñooñu ci taxaw ci histoire bi ku ci mel ni sëriñ Abdou Samane Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou Mbàkke di gërëm ki nga xam ne itam mooy Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbàkke ibnu sëriñ Cheikh Saliou Mbàkke di gërëm itam Serigne Mbaye Guèye Sylla historien moom itam jàpp na ci liggéey bi ak képp koo xam ne rek tudduñu sa tur da nga nekk koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi ñoo ngi lay jaajëfal di la gërëm lii nekkoon jaar-jaaru xaadim rasul kon des na yeneen histoire yoo xam ne danañ leen ko àndal ci mag ñi ak mag ñi àndoon ak sëriñ bi ci ay rakkam ak ay doomam te loolu dina leeral détails yi nga xam ne moom lañ tudd ci biir histoire bi te waroon koo tudd détails yooyu yëpp dana leer ci jamono boo xam ne indi nañ nata nataalu sunu mag ñi ngir fas yéene fas yéene jàngale tàmbale ko ci ñoom maam Thierno ak sëriñ Mbàkke Bousso ba ci Cheikh Manoune Sowa ak njabootu sëriñ bi ba ci taalibe yi maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñëpp danañu indi seen ay nataal ba nit ñi xam lépp loo xam ne des nañ leen ci mën a royee kon lii nekkoon jaar-jaaru Xaadim Rasul seen mbokkum taalibe bi leen ko doon defal di Cheikh El Hadj nekk administrateur bi seen production di ndaw lu xeebu lu ñàkk solo rek doon gëstu histoire bi doon leen ko dégtal li ñaan itam ngeen ñaanal ñu bu baax a baax ñaanal itam suñu site bi seen production mu jëm ca kanam ci barkeb Cheikhul Khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh